Babelengara, lima bengen hamko. Moi cette élection du 24 février. Inch'Allah, on va la gagner. On va gagner. Élection, on va gagner. C'est important parce que bu leen nangu ñu gëmloo leen parce que da ngeen dégg ñu ngi naan leen Macky Sall sàcc na élection ba pare. élection Sénégal du lu yomb sàcc de. élection bi fii le peuple sénégalais changement gannaaw yàlla gisuma ku mun a tere changement am. ëppul woon pexe parti socialiste ak Abdou Diouf ëppul woon pexe parti démocratique ak Ablaye Wade waaye bi Sénégalais yi décidé ni changement day am wane nañ personne ne peut faire obstacle à la volonté d'un peuple et la volonté souveraine kenn mu des nag ñu xam ñun wala ma laaj leen yéen waa Vélingara est-ce que vous voulez changement

xam nga jeunesse bi yëpp léegi waxu système la ñuy wax ndax mbir mi soo ko bëggee mandargal dafa mel ni jën rek jën jën boo nappee océan Atlantique dugal ko ci bocal bu am ndox boo ko sottee océan Pacifique boo ko sànnee océan Pacifique day fay dem moo tax ngeen mën a gis ay jën yoo xam ne fay nañu ak Senghor fay ak Abdou Diouf fay ak Abdoulaye

un appel au peuple sénégalais parce que ñoom dañoo jaaxle dañoo appelé fi mu ne nii xam ngeen yi muy def nii di essayer bàkkoog kii c'est pour se rassurer lui-même waaye li ko sondage yi jox li ko renseignements généraux yi jox ak li ko ambassade étrangère yëpp jox mooy foo jaar mu mu xalango ba mëkk ci suuf si looloo tax nag ñuy wër rawatina ci monde rural bi di gëmloo sénégalais yi li may wax dafa am solo déglu ko bu baax dañuy dem fekk suñu papa yeeg suñu yaay yi rawatina ci monde rural bi bëgg leen gëmloo ni ku pare na woon Macky Sall boo ko votéwul da ngay dem prison wax sénégalais yi ni loolu waxuñu dëgg. gis nga élection ak parrainage bokkul dem nañu yëkkati xaalis bu bëri di ko jox nit ñi pour ñu signaler leen moo tax ñu doon toog naan am nañu nangam ci pare lañ ci doon jublu nag mooy après dellu ci ñooñu ne leen yéen ñi pare ne woon yéen ñu signé woon ku ñu votelul da ngay dem kaso dem leen fekki nit ñi ngeen ne leen sénégalais bu ne bu demee ba dugg ci urne bi moom ak yàlla dong ñoo fa ne

parce que gis cette foule immense de jeunes qui nous suit qu'on la rek ci li nga ñu bureau ya ñu ci kër ci marché changer le système et voter pour un candidat neuf un candidat intègre un candidat compétent et un candidat patriote c'est-à-dire le 24 à minuit l'élection sera Le département de Benengara est la dernière étape d'une tournée Casamance. incha allah bu ñu jógee fii Tamba lañ mooy Casamance yëpp jóge la wax nag ba Gouloumbou Casamance yëpp ni ko Sénégal yëpp décidé Casamance yëpp décidé nañu accorder vote et leur confiance au candidat Ousmane Sonko. nous sommes à la fin d'une tournée Casamance. ne Casamance la tournée en détail parce que waxuma la sax rek caméra yi leen gis ils sont obligés ñu taal ay portable pour essayer de une un peu de lumière alors que ñi ngi ci département de Vélingara man man bi mooy centrale bi bokk man damay am gàcce ci Sénégal bu ñu gisee lii xam naa ni nag ki ngeen dénkoon réew mi juróom-ñaari at ñëw na doxantu fii waaye ni mu ñëwee la seule question bi ngeen mooy 2012 ñëw nga fi digee digee koy xepp dellu 2015 wala 2014 la ñëw conseil des ministres décentralisé pour la région de Kolda daa promettre un peu plus de 200 milliards est-ce qu'il que un bon ci département de la région de Kolda est-ce que gis candidat Sénégal ba mu daj amul fenn ne war nañ 10 de sortie sax il faut le sanctionner et sévèrement. Et le peuple doit comprendre une chose. dis-le le peuple avoir am patience de faire un homme politique du leen di Il faut def un mandat Il y a lamentablement gis François Hollande pourtant il a assez bien travaillé Ben mandat la def Nicolas Sarkozy Ben mandat la def parce que askanu il nous avons amatul patience jox nit mandat jox ko tous les moyens mu ànd ak njabootam ak ay mbokkam ak ay waa partem di noos ba élection jot nga ñëw taxaw naan dangay ngay naxaat nit ñi wala da ngay jël xaalis réew pour jënd nit ñi cette jeunesse là cette jeunesse saine cette jeunesse 2 point 0 comme am na candidat yoo xam ne dañoo siiw ci internet xam nga ñàkk xam-xam weeru weesuwul loolu moom nu mu ko xamee sax moom nga xam ne. suy def meeting sax mi ngi yor eh, tablette am di internet xam lan moy pour pouvoir internet man de mosuma ñëw tourner fi velengara waye li internet moo ko jox internet qui va le battre parce que internet interface que la waye ay nit ñone ci gannaaw te nit ñoo ñi ngi jokkalante di wax information bu am aux États-Unis à 8h à 8 h dix nit yéeg na ko fii Vélingara kon kenn wootul Sénégalais Sénégal lëndëm na amul électricité. maa ngi ñëw maa ngi ñëw Sénégal lëndëm na doy ak de qualité. Vélingara amul ndox bu doy et de qualité Vélingara bi ñu ma wanee poste santé bi dama ne waa Vélingara ko fi yalla nattu nga febar bu yego nga denk sa yalla ci sababu yalla jeleng da en tant que département amul sax lycée waxuma la nak université jeleng dara en tant que département bu ñewone infrastructure bu ñewone préfecture bi wala ñu won la eh, gendarmerie wala ñu won la mairie bi benn waaw Vélingara maa magi ñëw gaa ma rek ma limal c'est une région agricole mais baykat yi bu ñu ba pare déjà bu ñuy bay am nañu problème ndax duñu am intrant duñu am encadrement légui nag ñu may présenter monsieur Doumbia nga xamné c'était un sénégalais émigré bàyyi léppam dellu ci bay lu mat 500 hectares. Et il me dit, j'avais un problème pour récolte parce qu'à moins les machines qu'il faut, mais souvent par exemple un problème de commercialisation. Non, nous sommes dans les agriculteurs nous sommes ngi gis suñu papa bu yor plaque c'est pour les agriculteurs Vélingara les jeunes souffrent parce que amuñu liggéey Sénégal foo Sénégal, on te dit jeunes à part Jakarta à lu ñu mais ñi fi nekk ñëpp suñ doon def Jakarta kan la ñuy transporter. Vélingara amul ay tali ci biir dëkk bi ak ay infrastructures yu permettre yoo xam la ñu nekk. xam naa ne jeunes yi fi daaw Jakarta sax foofu làmb kon Vélingara kon Vélingara comme toute la Casamance, comme tout le Sénégal, Belengara souffre, mais Belengara souffre fièrement et dignement. Qui est-ce que la ndax bi may am 6 mois dans am un an et demi sama m'a samay ça m'a lañ leen affecté woon donc am naa fi ma bëgg la jeunesse de Belengara, les populations de Belengara.

potentiel biñ am Biringara ci mbay mi potentiel bi am Biringara ci élevage bi ndax Biringara mooy deuxième pole élevage ci Sénégal potentiel bi am Biringara ci lépp loo xam ne marché la yu jubbeeku ci sous région bi jawwee ngi fii ak yeneen ak yeneen potentiel bi am ci Biringara ci foresterie nga xam ne suñu garab yi Nous ngi ay industriel lëkkaloo ak administration du ko dagg di ko jaay te suñu menuisier yi amatuñu bois pour transformer yooyu yëpp ak potentiel bi fi am ci walu noix de cajou bi carte bi yooyu yëpp la bëgg les jeunes de Vélingara suñu ambition c'est de faire de Vélingara un pôle de développement mais le koy lal yépp moy faire des industries en matière de PME PMI ñuy transformer bi Vélingara de créer de la valeur ajoutée, mais de créer des milliers d'emplois pour les jeunes. On nous pouvons avec les populations de Vélingara, nous pouvons avec les jeunes, déglu leen ma rek xam ñu bëgg ko xam nga li ngeen di wax. président Sonko waa Vélingara déglu leen fii ma wax leen tey ñun dañoo sonn ñun jeunesse Vélingara dañoo sonn ñun dañoo sonn amuñu liggéey xëy ñu continue du yoon parce que tey boo gisee naka lañ naka ñooy toppee benn nit. ñu suñu ñetti ponkal yi nekk fii Macky Sall lañ topp lan lañ def Vélingara fii lan lan lañ def Vélingara ana lu moom joueur yaa ngi fii footballeur yi suñu terrain stade municipal bi amuñu synthétique amuñu projecteur benn point fii fii amul ku fiy xëy di gën fii ñëpp xoolal fii koo fi gis dañuy engagé ay taximan la ñuy liggéey fii ñun ñëpp xëy ñu gont ñu defuñu dara keroog Macky Sall bi mu ñëwee fii nii dañoo jàpp booy tëj leen dengan tempo yang kasut bola yang ini dengan jago tinggal kemudian ni bayi bola yang ini dengan sami dengan sami dengan sami dengan sami dengan sami dia Warna Warna kita terus ni Warna kita terus populasi Orang dalam wax na loo xam ne li rek injustice bi am Sénégal moy les deux poids deux mesures bi am Sénégal le jeune de Verengara, le jeune de Diaobé le jeune de Koukandé le jeune de Bignona le jeune de Saré les le jeune le jeune le jeune ñom ils ont les mêmes droits l'habitant sax ils ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que nous dëkk feneen ak feneen du Sénégal

mu wax nii dama leen di wax nag defal ndànk rek dama leen di wax xam ngeen ñun duñu politicien ñun acteur politique lañu jàkkaarloog askan wi xool leen ci biir bët wax ak dëgg du dara ci ñun ndax ku ñu woteel alhamdulilah waaye nag ñu woteel ci dëgg ku ñu woteelu leen sant nañu yàlla waaye nag dañuy waxante dëgg dernière élection locale kan moo ko gagné Vélingara dama dégg bëgg a dégg seen baat dernière élection législative kan moo ko gagné Vélingara kon su dee nit ñi dañuy jàmbat di jàmbat di jàmbat te jamono tànn su jotee gars yi débarqué fi ak seen i valise ak yeneen ñu topp leen dem voteel leen kon bu ñu toogati di jooytu naan dañoo sonn il faut que de la même manière que da ngeen bëgg am de leaders politiques yu bees yu jub yu bëgg askan wi yu teg bu ngeen demee nag ba am loolu te man loolu jiituwul ci man Cheikh Anta Diop jaar na fi Mamadou Dia jaar na fi waaye dafa mel ni léeg-léeg askanu Sénégal ñoom ci seen bopp ñoo xaw bëgg ku leen nax nag ñii ñu ngi leen naxee bourse de sécurité familiale ku ñuy jox ku ñuy jox ku ñuy jox cent mille francs ci at bi ne la quarante mille yi da nga koy teg de côté pour njàngu xale yi mille 000 francs yi c'est moins de 300 francs par jour 300 francs par jour ñu koy naxee suñu yaay ak suñu papa yi ba ñoom ñu war a wëlbatiku ne ñoo ngi dem hôtel Macky Sall askan bu ni mel dina jafe yenn saay nga jubbanti ko wala nga defar ko seen responsabilité yéen les jeunes mooy ngeen leen fekk leen ne leen yi dañ leen di nax parce que ki ñuy jox mille francs ci at mi te mu yor juróomi waxambaane ci kër gi te kenn amul liggéey nga jëloon ñaar wala ñett ci ñooñ jox leen liggéey ñuy fay ko weer wu ne cent mille bu ëpp waaye nag bu mag ñi kese de parce li ëpp ci électorat bi c'est des jeunes les jeunes font 65 pour cent de la population kon lan moo mën a justifier jox nit réew def dara lu baax a bi ni état di les régions périphériques Kolda ci la ndax Kolda deuxième en termes de taux de pauvreté C'est du la C'est du moy premier en taux de pauvreté Tamba ci

Kolda dina gagné Tambacounda dina gagné Fatick dina gagné Matam dina gagné Sédhiou dina gagné sax yenn saay Ziguinchor léegi nag dama bëgg ngeen wax ma est-ce que loolu fi mu ne nii yéen pare ngeen pour wane ni kenn dootul nax waa région yi donc donc la balle est dans lenn am na déglu rek lenn am na

kon su ma xalee xalaatee kooku xalaat naa buuroo jeune frère parce que yéen ku leen jàppale jàppale suñuy maman jàppale suñuy papa donc c'est un bout de faire la victoire le 24 février loolu jaratu ko de dañoo sonn dañoo sonn loolu jaratu ko dans une semaine vous avez la possibilité Sen gàcce googu ak seen coono googu ñu leen teg vous avez la possibilité de régler ça je vais vous le dire sortez massivement allez voter parce que taux d'abstention est de jeunes il y a moins de 30 des jeunes qui votent s'il y a 60 des jeunes qui votent le 24 février à minuit Makissal Sall mais si vous votez vous vous restez dans les centres de vote parce que nous, ni ñuy sàccee alalu réew mi à coup de milliards nous la ñu fas yéenee vous êtes les garants de l'élection vous les jeunes c'est votre avenir qui se joue le 24 Si vous demee voter, vous pare te yéen xam ngeen kan ngeen di voté bu ngeen voté ba pare toog leen def des comités de veille au centre de vote s'il vous ne dafa bëgg def le faut battez-vous avec lui parce qu'il veut confisquer votre avenir gis bu ko ba vous avez rempli votre part du contrat mu dess ñun mais moi je vous promets en tant que grand frère en tant que frère pour en tant que fils en tant que cousin en tant que euh, neveu moi, je vous promets ici que vous sauvez Yalla, on ne vous desservira pas. Si vous remboursez votre part de contact, nous n'allons pas fini, nous ensemble, parce que le monde a changer le Sénégal, nous ensemble, nous allons changer. En moins de 10 ans, on va mettre ce pays-là sur les rampes du développement. Quel nous connaît Am Tilim Tiwara Am, moi, l'unité de ce slogan, Jotna, l'un mot Jot, moi, il n'y a pas L'homme jot le combat du 24 février est-ce que Velengara est prêt à relever le défi est-ce que Velengara est prêt à relever le défi on vous donne rendez-vous on vous donne rendez-vous au soir du 24 février on vous donne rendez-vous au soir du 24 février pour balayer le système de corruption le système de prébande, le système d'accaparement, le système d'incompétents, Dadi en main, récupère notre souveraineté et mettre cette jeunesse-là au devant de la scène parce que vous méritez qu'on s'occupe de vous. Je vous remercie, Verengara. gonna be young. It's gonna be young.